leen ngeen abonné ci chaîne YouTube bi bu ko défé ngeen bës bi di am ay vidéo en exclusivité mbokk cinéma bàyyiwuñu dara lépp loo leen di xaar ni information da ngeen koy am ak banlieue production publicité pour am visibilité banlieue production moma ci doy jokkool ak service commercial 77 533 17 31 wala nga woté 78 211 08 94 ak banlieue production seen qualité. moy suñu mbég waaw ñoo leen di nuyu di leen ziar yéen tamit di leen déwénal di leen baalu xaq di leen baal àq yan nañ ko teewe déwén yu bare bare Kumba mu ndaw nag suñu doom la bi mooy deuxième édition mu di ko def yan naka yàgg taxawe bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu doom la doom ji neex a jur la nag xam ay ndayam respecté leen faale leen yërëm yaayam macha allah xeexul xuloowul jàmm rek la seq ak ñëpp kumba yal na ko yàlla jàppale yàlla saxal euh, saxal seen ànd yàlla yokk suturaam yokk teraangam yàlla ir ka aar ka sàmm ka macha mu yàgg de ka teewe lu mu ci mën ren déwén rek yal na mën lu ko ëpp déwén lu mu ci mën ren yàlla mën lu ko ëpp déwén te yàlla dina ko ka defal sax ndax ku baax la xolom yaatu na macha allah respecté na doomu aadama ñun daal dañ koy ñaanal rek dañ koy ñaanal daal gudd fan ak wér. yéen tamit yàlla sax eh, yàggal leen fi eh, jàppale leen yàlla saxal leen seen liggéey liggéey bi rafet na macha allah yëf yi moom dafa ala daaw me macha allah yal na yàlla defar lépp jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu kooru jàmm dugg nañ ceeg bisimilah rahmaani rahim ñoo ngi koy àggaleeg alhamdulilahi alamin yàlla may ñu fekk ka déwén tal ka jaay Seydina Mohamed nuyu nañ leen siyaar nan leen gërëm nañ leen sant na leen macha allah. jërëjëf gis nga Cheikh ak Beñi waa Cheikh maa ngi lay jaar. delloo ziar bu baax a baax. Cheikh comme ni ma koy waxee rek tim ko moomu ndaw tey di def nañ loo xamante ne bii lu doy waar la lu extraordinaire la gis naa la tey bi nga xamante ne ndogu mi ngi waaj jot nii ñi ngi préparé mais Cheikh yow dafa mel ne yow yaa féetoo wàllum Beñi de. ah waaw yaa gisee nekk lu dul um, uh, mbégte ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw tey rek mm-hmm. xam nga Khady Ndiaye dafa nekk nit ko nga xamante ne nit ku baax la loolu moo taxoon ñu ñëw jàpp si lii nii yëpp comme ni ngeen ko gisee nii dañ nekk si liggéey bi nii moo tax ñu <laughs> gàddu ko mbeñ bi mooy tooñee nii. <laughs> mais initiative bi nag lan la parce que man dama doon gis ñu bëree bari tey association yu bëri wala fan club yu bëri ñu bëri ay soirée la ñuy organiser yeneen ak yeneen mais tey yéen ngeen taamu weeru koor ngeen di def social. waaw initiative du dara lu dul jàppale ñi nga xamante ni mooy xale yi en plus euh, plus particulièrement taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu gën a jege loolu mooy suñu initiative quoi ndax gis nañ ni que xale yi moom ñu ndimbal bi nga xamante ni moom la ñu war a am ñun nag dañ jub pour jàppale leen xale yi nga xam ñoo gën a nekk suñu suñu priorité daal waaw mi ngi noonu. macha allah looy wax waa Ndar tey. bon di félicité bu baax euh, d'abord dama félicité bu baax sama équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo fi ñëw tey pour jàppale li nga xamante ni moom mooy ndogu bi nga xamante ni moom la ñuy euh, def nii comme ni ngeen ko gisee ay équipe bu jàmbaare donc waa Ndar tamit dama leen di gën a soññ ñu euh, pour ëllëg ñu ñu def lu ni pour à ñu mën a dimbali ñi nga xamante ni mooy taalibe yi. suñu ko la tey gis naa la dafa mel ne yaa féetewoo barketu taalibe yi. waaw gis nekk si organisation bi moo tax ma ne waa gis nga de dañ nekk si organisation bi moo tax waaw dañuy def te yàlla tax rek lii moom defuñu ko ngir ni dañ koy def rek ngir te rek tax comme niñ ko waxee rek seetu nag deuxième édition bi la moo soogaa mel nii. xam nañ ne nag demeewu woon nii mais gis nañ développement par rapport ak ni mu meloon première édition bi waaw noonu la loolu la rek. mais comme li ma wax sànq rek daf ta yàlla tax la waaye ki tax ngeen koy def ku moom ndaw ndax seetaanu leen. non seetaanu si dara parce que bi ñuy bi ñu tamit bi ñu dënmalee lii tamit moo si njëkk joxe participation moo si njëkk jàppale aussi moo si njëkk génn participation ñun ñun tamit ay xale rek lañ def nañ li ñu mën dajale lañ li ñu am ba tey jii nii lii rek dañ siy sant yàlla parce que yaakaaroonu woon ni sax dinañ am lu ëpp lii. mais ñoo ngi sant yàlla bu baax. waaw en tant que jigéen nag tey noo gisee gëm bi mu ba gëm boppam ba nga xam tey jóge ci village ville sori bu mel ne Ndar dem ba Dakar tey dem ba nga xamante ne bii tey partout Sénégal ñëpp xam nañ ko tey man mën naa ko seede ci moom doo ko gis lu ñàkk fayda doo ko fekk fu ñàkk fayda. waaw na sant yàlla rek. te gën a xam mooy kan xam fi muy teg tànkam bu baax xam nga ñun moom doomu Ndar saf soowunu nu ñuy gis yenn genre yu ñàkk yi na gën a xam mooy kan gën a xam li ko yóbbu parce que fi mu dem nee du dëkkam dafa dem pour liggéey justement fii la dëkk da gën a xam bu baax li ko yëkkati ak li ko def te bi mu demee tamit ba léegi fàttewul fii ñi fi nekkaloon ak ñëpp fàttewu fi kenn kon alhamdulilah ko yalla yoko gën ko dimbalé ñu gëna dund bay teewi li da mais ceebu ndar ba ngoy may ah waaw ndar baa ngi si kanam tuuti di nga xam ceebu ndar ni mi mel inshallah rabbi nako mu señ bi ma ngi lay ziar. tay lo moy wax ci xadi Ndiaye. ni ku bax mhm. ki yaru. Mhm. ku mun joxe ñam. Mhm. te yaayam nek ni ko xamni ni ku bax man sama xarit la nak sama xarit la mu nek ni ku bax parce que man mi sa sax année. dafa am benn mbaa di kër bu may def mais lu mu xat-xat dina bay itam yépp ñew moo bu amé événement mhm. ñu dañ koy gunge mhm. parce que diko ñaanal li yombul mhm. joxe ñam yombul nga koy def chaque année kon ya naa ne ku nek wonna ci si leçon kon ñi nga xamni yor nañ seen alal yore seen ay milliards nang ko def fi fi mo ëpp njëriñ kon mom dañ koy ñaanal guddu fan ak wér ak ñu fi nek yépp di contane yeen ci yeen yeen tamit ah. macha allah mais comme li may wax rek gis naa ñu bëree bëri ñoo xam ne buñ génnee télé benn yoon ñaari yoon rek dañuy fuuy ñi doon àndal dootuñ leen lijjanti dëkk bi ñu dëkkoon sax xañ na buñ fa demee dañuy làqatu mais tey moom chaque ane muy def lii di ñëw ci dëkk bi di waxtaan ak ay xaritam di di di nekk ak ñi mu nekkandoon loolu doomu ndar bi la wala waaw doomu ndar bi ci la bokk. Mhm. mais moom personnellement moom noonu la mel. Mhm. moom dèjà moom dafa baax mu nekk nit ku baax. Mhm. oyof lool. gis tey bu ko neexoon bu ko nee neexee mën na man génn naa télé tey mën na changé àndandoo yu bees. mais yàlla dafa defal ni ko gisee ñu mën a àndal démb lay àndal. kon nag moom dañ koy ñaanal rek kon ñu koy waxee rek chaque jour dañ koy ñaanal gudd fan ak wér. te lii mu yàgg di ko def te gaa yàgg di ko dooleel. yàlla yaakaar naa loolu moo am solo quoi. Ah, en fait Coumba bu Ndaw man. xaytu rakkam la mais xam nga ndar ñëpp ay mbokk lañu xaytu rakkam la looloo ma indi woon si kër ba foofu yàlla xam ni ñun ay mbokk lañu ay cousin cousine lañu entre ñun mais moom nekk na nit koo xamante ni dafa wàcc boppam oyof lool boo ko fekkee ak ñun fii nii danga naa kii ku ñàkk fayda la wala kii ku lii la te fekk na dafa ouverte daal ba mu demee génn na télé nekk artiste taxu ko mu nekk nit koo xamante ni dafa dem fàtte dëkkam wala mu dem bew parce que ñu bëre si nit yi loolu la ñuy def dañuy dem rek bew mais moom daa dem xalaat ni bi mu demee am na lu mu bàyyi lu bëre si ay changement mu indi ko fii su ko neexoon mu ni léegi acti euh, euh, la damay dem def damay dem ay hôtel damay dem mais moom bu ñëwee danaan namm naa tàng naa kaa lañ dem namm naa pomme de terre baxal kaa lañ ko def di fàttaliku ni moom am na si lu mu jaaroon te loolu du tax euh, am am bu lii du tax mu fàtte loolu noonu yamale boppam ak ñëpp franchement lii tamit initiative boo xamante ni daara def ñu aw prison aw ñu ñi ñu aw ñëpp soxla nañu social ñu toog mu waxtaan si ak ñun ni yéen doxal leen yenee sam rek fépp fu ngeen jaaxle rek ngeen wooma te saa yu ñu jaaxlee mu geesuñu moom te aussi li muy def nii dina leen jàngal yéen ëllëg tamit ku ci nekk loo mën di doon ci àdduna tamit nga xam ne base bi fii la. waaw ñun moom yàlla dafa def ni doomu ndar si boppam li ñuy naan teraanga ndar ñu bëre duñ ko gëm mais daf fi fekk baax. man moom gëm naa waaw parce que ndar moo nekk kër goo nga xamante ni man suñu kër koñ bële la bu ñu toggee lu nga xam ne du ma ko lekk su ma ñëwee kër gi damay lekk. yenn saa yi ñoom ñu toog seen lu nga xamante ni man duma ko sax yëg yaayam si boppam moo may woo cest à reer bi lii la ñëwal nga wétte lu ñu ñu ñëw toog kafre lépp di ñu gën yokk jom di ñu wax xale surtout yu jigéen danaa góor bu mu yóbbu seen bu alal këf seen bët lépp lu rakkam yi soxla mu daw si pour léegi gën leen yokk jom gën leen wan ni jigéen taxul nga ñàkk fayda taxul nga nayif di ñu gën a encouragé daal لا إله إلا الله منصور فعلوا ليدك الإيوان كان رواه

কেনে dingayo dewa yaa tax ba soxla leen defal agañ sire ti laa la faal gën doomi soxla yee fi jaar dine gu rëy la ni doxee defal ñëpp màggal Seex Ibrahima Fall jazaaka Seex jazaaka jazaaka Seex lamp be Seex Bamba dara li réew mi yaay kamal nga doole ay ngëneel day la يراني البهار كل من جملة الهدى لخناهم أرمان Kasih dado وغافرها من وبلا والواقعة لا إله إلا الله đi được kê Abonnez-vous abonné ci chaîne YouTube bi bu ko défé ngeen bës cloche bi di am suñu ay vidéo en exclusivité mbokk yi cinéma bàyyi wuñu dara lépp loo leen di xaar ni information da ngeen koy am ak banlieue production publicité pour am visibilité banlieue production moma ci doy jokkool ak service commercial 77 533 17 31 wala nga woté 78 211 08 94 ak banlieue production S'en qualité mooy suñu mbé